mbokk yi ñu dellu siwaat ak yéen ci toppuka ci loo xamante ni jamono yu weesu lëmbe na woon réew mi coow li bëri ci lool lool lool ci mu ànd ak nakar ak tiis ci lenn ci askan wi ndax dañoo nakar lu woon mbir mi mbir moomu mooy lan muy mbirum Cheikh Niass nga xamante ni moom immigré la woon nekkoon fële ca France mu ñëwoon Sénégal ci veyu màggal gi yàlla dogal nattu dal ci kawam ba jàppante am ci ba mu àgg ci police ca noonu lañ ko transféré Cap Manuel nu toog ba ci yàgg ñu xëy xibaar ne dafa génn àddina loolu nag nekk nakar ci waa këram ba tax na ñoom génnoon nañ sax ci média yi ba lu ko bëggoon xam réellement yan condition la seen doom euh, faatu waaye nag bu ñu ci mbir mi tuuti nu fàttali leen nii moom euh, ca guddi googee nga xamante ni ca lañ ko interpellé dafa àndoon ak doomam ak benn frère am ca otom nee nañ coow li mi ngi tàmbalee ci laaj gi nga koy laaj carte grise assurance nga nga xamante ni amu ko woon ca noonu la jàppanteeg euh, bi ko interpellé woon ba nu àgg ca fële ne la ca police waxi naan Nimzat fa leen ko téewee ca lendemain ba ak waxtu bi ñu koy jàllale waaye nee nañ nag ci diggante bi ci ay témoignages yoo xamante ne ni ña fekkee woon mbir mi di ay témoin nee woon nañ mi ngi doon jàmbat euh, garab yoo xamante ne na yitte woon woon na kon pour mu jël ko waaye tamit nag njaboot gi waxoon ni ñoom bi ñu tàggale koo gisee ak moom ba tey waxtu woo nga xamante ni génn nañ def conférence presse nee na mun ñu woon teg bët maanaam koor bi entre nag autopsie am na ci autopsie bi li mu révélé nag mooy que ni nee nañ Cheikh Niass amoon na euh, tawat wii di mbas Covid 19 waaye tamit amaale woon na euh, njab euh, jabet bi démb. nu seetlu ni ca leen annoncé woon ne dañ ko war a jébbal boromam denc ko fa fële ne la ca cimetière ak Cambérène foofu tamit nañ ci def taxaw seetlu ndax presse bi ak média ñu ci bëri nee nañ euh, dañoo éconduire maanaam euh, corps bi euh, nee nañ duñ ko fa suul dañ koy yóbbu ba ca lendemain maanaam samedi tey ji la fa mat a leeral mooy que ni dafa am benn réglement boo xam ne moom mooy dox sa cimetière ak Cambérène li ko dalee 7 ba 18 waxtu woowu noonu ci intervalle boobu noonu la ñuy faral di denc néew yi waaye bu weesoo 18 amatuñu maanaam droit maanaam dañ ci fa benn néew ci Sénégal ci topp tey jii ni yàlla dogal na jot nañ euh, waa kër gi ba yëgal nañ ñu ne mujj nañ ko euh, denc mujj nañ ko jébbal boromam euh, moom Cheikh Niass mu di information goo xam ne amee nañ ko woon ci seen waa kër waaye nag jot nañ leen laaj tamit gannaaw autopsie bi ndax ñoom à niveau waaye tamit bëgguñu bëgguñu cee sori bëgguñu cee sori waaye lu ci wóor boor mooy que ni am na loo xam ne ñoom ba tey tey na seen xel ci condition xamante ni moom la euh, Cheikh Niass faatoo ak ci condition yi nga xamante ne tey jii ni moom lañ defee autopsie bi gën naa ban ko jëbalee euh, boromam mu di ay leeral yoo xam ne Sénégal bëggoon na ci woon dikkaat ndax boobu ba tey ñu ngi topp euh, maanaam dossier bi ba ni ko yàlla maanaam moomee nga xamante ni mujj ko delloo boromam di leen fàttali ni li ci maanaam xibaar ci mbir mi lu ci amati rek incha allahu rabi daan dikk ak yéen gën ko leeral di leen jaajëf